une chaîne de télévision culturelle et religieuse Rafah TV ñëppay dañ agréer bi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu maa ngi nuyu nuyu waa daayira bi sob Serigne Mountakha di leen ziare di am di leen dalal jàmm di leen wax ahlan ci daara ji ci li nga xam ne baaxoo ngeen ko def ñëwaat fi tey jii ñu fekk suñu fi ñun donga yi ñu ngi léegi ni nuyu bu baax di leen ziare bu baax di tatagal di am mbégte baax ak euh, kontante Euh, ci seen taxawaay bu rëy bi nga xamee ne jamono jële yéen a ngi koy taxaw di liggéeyal yàlla liggéeyal sëriñ bi ci njabootug sëriñ Mouhamadou Mountakha euh, di amati mbégte kantaan euh, kii rek xanaa kàddu yi sax ma waaye sant rek sant leen baax a baax di di di di di di di di leen ndokkeel di leen ñaanal suñu borom sàmm leen suñu borom aar leen ci barke sëriñ bi bi tax ngeen di def musal leen kàttanal leen daf ngeen daje ci ngërëmal sëriñ bi ak taw tawfeexam ci barke borom Tuubaa sëñ bi nangu lépp gërëm ko zahiran baatin eh, xam naa kàddu yu sant lay doon rek moom am nañ mbégte baax daal ci taxawaay bi bi nga xam ne taxaw ngeen am nañ ci mbégte bu baax ñuy siyaara eh, jëwriñ yi sëñ maam Cheikh sëñ sëñ sëñ sëñ Moussa am mboolem ñi àndal daayira bi yëpp taxawaay bi rafet na lool wax dëgg yàlla eh, dong yi nekk ci bërëb di di di ngir jëm yàlla nekk fa di liggéeyal yàlla ci kàppaaru sëñ Mouhamadou Mountakha yéen ngeen fas yéene Eh, di di di di di di seen ñu ñàkk ngeen ba fa yéene ko séddoo ñoom ngeen am di di di ko bokk ak ñoom lool lu rëy rëy la loo xam ne tuyaaba ji eh, yàlla rek moo xam ne mu toll yàlla na nangu lépp te gërëm ko ndax eh, sallallahu alayhi wa sallam day wax ne ku xiif nga jox ko ab tibb rek loolu nit mën naa may nit ku lu ne àdduna ak àllaaxira ci li mu bëgg ci àdduna ak àllaaxira moo gën tabax junni juma waaw rawatina nag jëf ju ji nga xam ne defe ngeen ko ci jamono ju ne te doo leen te dëkku leen ci kon leen di ñaanal yàlla bu leen am ndokk yàlla ngeen mucc yàlla ngeen wér lu ngeen man yàlla ngeen man lu ko ëpp da saa borom nangu lépp di gërëm ko ci barke Sëriñ Tuubaa asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi nuyu ñëpp tey jéggaloote bu baax ci kàddu yi di sant yàlla bu baax ba ñu suñu borom dimbalee kàttanal ñu bañ mën a amalaat liggéeyam Sëriñ tubaab yi tey ñëw fii ngir seedeel ko daara ji nga xam ne moom lañ nekk samay kàddu nag yaakaar naa ci mbooloo nga xam ne moom laa jiite fi lay jëm Euh, ñu xam ni euh, liggéey bi lii la mooy lan mooy dajale suñu alal liggéeyal ci Serigne Touba ci daaray Serigne Mountakha yi ku nekk xam na ne tamit fañ ko defee woon moo doonoon daaru Tanzil tey ñu ngi ñëw fii tiib des na yeneen ñaari daara te li tax may soññee rek mooy euh, ñëw gi ñu ñëw fii day doon loo xam ne ku ci nekk ci ñun bu àggee dana dana def ci yow jeexantal ab jeexit boo xam ni dana tax ëllëg nga gën a yokk sab jéegu ndax ku teew fii war ngaa xam ne li ñu dese bari na lool liggéey la boo xam ni bu fekkoon fukk la benn bi sax dañ naan defaguñ ko benn bi sax defaguñ ko kon bu yàlla dogalee bu demee noonu ñun ñëpp li ñu war a fas suñuy xol mooy lan mooy fexe suñu këm kàttan ba ñu def mooy lan fexe ba dund gi di fekkal ndax loolu dëkk bi ndax amaguñ lool loolu nag lañ koy mayal mooy la mooy gën a am pas-pas ci liggéey gën cee am yitte gën a dëgëral suñu jàppante ngir jëmmi sëriñ bi ngir a fexe liggéey bi mat fa dañuy ñaan ci mbooloo nekk bu loolu yàlla dañ koy wax comme niñ ko waxee woon ci sukkaru koor muy sëriñ bi ginnaaw bi nga xamee ne sant nañu bu baax a baax rawat na cant bi ñu cant mooy fii nga xam ne fi lañ teew ci muy daara si bés bi yoo xam ne tey mu ngi loxoy mu ngi ci loxoy suñu dañuy sant bu baax bi bañ bañ bañ teew ngir lan sant bu baax a baax waaye mbooloo mii dañu mbooloo moo xam ni mbooloo la moo xam ni sëriñ bi dafa leen a ñor ay soppe nañ waaye sëriñ daf leen a ñor ñor googee mu leen ñor man mii nga xam ni maay dund ak ñoom ñëpp man mii nga xam ne maay dund ak ñoom ñëpp xam naa ci loo xam ni giñ naa ko ci baaxu seexal xaddim mënuma koo wax ciw làmmiñ damay dem ba mujj gi damay yedd sama bopp mooy lan yaroo gi nga xam ni yaroo naa ko ci euh, ron ronuk sëñ bi te pas-pas bi nga xam ne am nañ ko ci liggéeyal sëñ bi amuñu amuma ko man ba na na ma ko waxee woon laay waxaat ñu ngi sàkku ngir jëmmi Sëñ ni ko maam Cheikh Mbaye waxee démb day dëgg giñ naa ko ci Seexul Xaddim li ñu bëgg mënaguñ maam li ñu bëgg xaajaguñ faa àgg te métti na lool nag métti na lool boobaak léegi ñuy bëgg loo xam ni bëgg nañ faa àgg te mënaguñ faa àgg te ñu xam ne seen jëmm yii mën na ndax ay jullit ngeen ay murit ngeen ay nit ngeen ñoo xam da ngeen ni sàkku ngërëmal yàlla te fi ngeen koy sàkkoo tamit bokk ci fi nga xam ne moo gën ci sàkk ngërëmal yàlla kon ñaanal leen ñu am sëñ bi fii ñu toll dañ fee bëgg a weesu dañoo bëgg lim bii ñuy joxe fuñ toll balaa déwén ñun ñëpp ku nekk mën a joxe lim boobee ba suñu xel mën a dal ndax ba tey mënaguñoo gëm ni mënaguñoo gëm ni ñu ngi liggéeyal sëñ Tuubaa ndax ba tey sas wa nga xam ne moom lañ daan wax mënaguñ koo matal loolu nag gàcce la ci ñun gàcce gu la ci ñun comme que gàcce la ci ñun te sañ nañoo dagaan ci yéen dimbale leen ñu ngir jëmmi Sëñ Tuubaa ngeen taal ñu man ngeen ko def leen ko barke Seexal Xaddim man ngeen ko boo leen ko bëggee mu am giñ naa ko ci jëmmi Sëriñ Tuubaa ñu ngi koy sàkkuwaat bu baax Mbàkke ñu ngi jéggalu bu baax a baax mbokki taalibe kenn ku ci nekk ñu ngi koy nuyu turam ak santam te di leen baal àq bu baax te di leen ko baal tey ñaanal Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké sama borom yàggal ko fi lool te mu ànd ak wér di ko ñaanal it sëriñ Amdi moom sëñ Modou Menda sama borom yàggal ko fi lool te mu ànd ak wér. di ko ñaanal sëriñ Ibrahima Mbacke leeru sëriñ Mountakha Mbacke sama borom yàggal ko fi. di ko ñaanal it jëmm ji nga xamante ni moom lañu fekk si tey fii ci daaray Tiib muy sëriñ Xaadim Mbacke moom maam Thierno moom sëñ Mountakha Mbacke di ko ñaanal moom it sama borom yàggal ko fi lool te mu ànd ak wér. di jël suñu nuyoo xëcc di ko jëmale ci daara ji nga xamante ne nii mooy fédération bu Serigne Mountakha Mbacké di ci jiital ki nga xamante ne nii moom la Serigne bi jiital ci sunu kanam muy sëriñ Salihu Sorang di ko ñaanalit li nga xamante ne moom la jiite ngir liggéeyal ci maamam ji Serigne Mountakha Mbacké waaye it di ci sàkku ngërëmal sëñ Touba yàlla na ko sama borom yàlla defal te mu ànd ko ak mbooloo mi yëpp di siyaar jëwriñ yi nga xamante ne nii ñoo féetewoo ci mbooleem dëkk yi nga xamante ni tey ñoo fasantikoo ba agsi fii ci daara ji nga xamante ni mooy daaray tiib mu mel ni ndakaaru ànd nañu ak jëwrin sëriñ baay Cheikh Mboup di ko siyaar bu baax te di ko jox wàccuwaayam mu mel ni it amaat na beneen fédération bu newaat ci biir fédération bi ñu koy tuddee ahlu ridwaan ci njiital sëriñ Xaadim Sëy ak sëriñ maam seex Mbay ñoom it ñu ngi leen di siyaare bu baax te di leen jox seen wàccuwaay mu mel ni it ànd nañu ak daara ji ñuy wax waa Joal ñoom ci njiital sëriñ Badar moom tamit ñu ngi koy siyaar bu baax te di ko jox wàccuwaayam mu mel ni it ànd nañu ak ñi nga xamante ni ñoo féete ci extérieur bi ci njiital Serigne Muntaxa Kebe waaye mu mel ni sëñ Massamba Dia moom moo fi teewal mbooleem ñi nga xamante ni mooy waa extérieur di santaat bu baax Serigne Touba waa Louga it waaw muy sama xaritu bopp di sëriñ Basirou Sarr moom it ñu ngi koy nuyu bu baax te di ko siyaare te di ko jox wàccuwaayam mu mel ni lañu tax a jóg ñun ñëpp yaakaar naa ne xam nañu ko waaye fa liggéey ba jëm kat ak fa mu war a yegg loolu yi képp moo waral ñu bàyyi sunu yitte yëpp jóg ngir ànd ak sëriñ bi ci taxawaay bi nga xamante ni mooy taxawaay yin ko sàkk woon ci jëmmam mu daal di ñu koy baaxe jox ñu ko ngir ñu taxawu ko muy daaraam yi liggéey bi nag ni ko Serigne Saliou waxee léegi noonu yi képp la demee ndax ñun kat banu nu yàlla di bind liggéeyal Serigne Touba rek a taxoon mu binduñu ginnaaw ba kenn ku ci nekk ci ñun nangu nga ni bi la yàlla di bind liggéeyal Serigne Touba rek a taxoon mu bind la kon war nga jéem sa kéem kàttan ba sa dund gi da koy jeexal ci Serigne Touba. ndax wax nañ ni kat kenn ku ci nekk na nga muriteewoo noonu ngay faatoo waaye noonu yi ngay dekke kon loola ak sant yàlla la ci bu nu nekkee ci liggéey bi nga xamante ni mooy taxawu daaray Serigne Mountakha yi li ci Serigne saali wax nag moo ci nekk ndax amuñu lu ñuy naxante amuñu lu ñuy nëbbante ndax ngërëmal yàlla la ñuy sàkku te ngërëmal yàlla feen fenn moom da nga cay dem rek kéem sa kàttanam ca toll noonu yi képp nga ci toll. waa waaye it ñëpp mënuñoo doo tolloo ci benn màqaama mënul ne ndax tey jii ñii ñu fekk si tey mu mel ni kër waa kër sëriñ mu mel ni waa kër sëriñ Muntaxa Mbàkke yi ci njiital sëriñ Xaadim Mbàkke mi amaana moom tey bu ne bu jóg bu bu bu ganee àdduna rek dana am loo xamante ni moom moo nu koy rawe loola nag mu neex la ak mu naqari la ndax loola saa borom yàlla moo ko dogal te dogalub yàlla moom kenn mënu ci dara lu dul ànd ci daara ji nag ban koy taxawal saa su ci nekk dama koy wax ndax bari waa na ñoo xamante nii balaa ñoo jóg di liggéey dañuy liggéeyal kun naan ab xalifab sëñ Touba waaye daara ji bi muy sosu booba Serigne Mountakha Mbacké doonagul xalifab sëñ Touba loola lu mat a bàyyi xel la te daara ji dañoo fas yéene suñu giirug dund ñu nekk di ko taxawul sëñ Mountakha ndax loola ab jaayante la boo xamante nii wax nan ni keroog ba nun ni ban demee ci moom ni ko Mbacké ñun day benn yitte rek la ñu am ndax ñun sax lii ñu def ren mooy ñëw ci daara yi bañ a dem ci sëriñ bi di ko siyaare ñun soxlawoo wuñu loolu ñun li ñu soxlawoo mooy fexe ba daaraam yii seenug dund di mat ni mu war a mate ndax ñun maanaam kenn ku ci nekk ci ñun wir nañ la te leer na la ni daara yi ñu fiy indi xaaj ba sax mënu leen a dundal weer loola ñun leer nañ ñun ñu koy indi kon la ca desaat mooy jóg dox te nekk ca la nga xamante ni moom lañu ñu war a nekk waaye la ca gën a neexati mooy ban demee ci sëriñ bi daf ñoo wax ni lii ngeen jël day tey jii xel xiyaasul woon yor ko ginnaaw ba sunuy xel xiyaas na ko waaye xel mu xiyaas donc taxut nga yor de faaw mu tombeek ndigalu sëriñ bi waaye faaw mu tombeek dogal bi dal ci sa kaw waaye ba ñuy yegg si sëñ Muntaxa Mbàkke booba la yàlla sama borom dogal dogal bi yegg si suñu kaw sëriñ bi jox ñu liggéey boobu yi kon liggéey boobu war nañ cee jéem suñu kéem kàttan Mbàkke tey de leen rek ñu fi indi woon mooy indi liggéey bi nga xamante ni moom lañ jaayante woon ak sa maam ji liggéey bi nag moo ngi ne bariwut xeeb nañ ko lool ndax lañu bëgg weesu na lii bu nu sañoon tey daa ji étage lañ koy def barke Cheikh Ahmadou Bamba bu ko buñ ci amee ndigalu sëriñ bi bu nu sañoon boo booleem daara sëñ Muntaxa Mbàkke ay étage la ñuy doon donte nag xam nañ ne daaree tarbiya moom am na nu muy demee waaye nag lu mën a xew sunu yéene moom danañ ko wax te yéen a jooju it fas yéene koo matal moo tax tey ñu dajaloo mbooloo mi yërmande yàlla da cee nekk ndax ñun ñëpp kenn ku ci nekk buñ fi jógee tas nan ku ne dem nga man am na ñoo xam at baat lan may gis muy bis bii. loola nag la waral tey jii saa bu nu ci lii liggéey bi mën a mat mooy yërmande yàlla dafa dugg ci sunu biir loola nag mbàkke ñu ngi leen di ñaan mu sax fi lee ñu jot indi mu mel ni lenn li moo jëm si ci daare ji waaye la ca des moo jëm ca daaray mbul la jëm ca daaray euh, tanzil ak la jëm ca daaray waalo ma nga ñu bàyyi ca daara ja ngir bu nu jógee fii mën a fexe nu mu demee ca daara yooyu yi kon loola moo doon li nga xam ne tey jógoon nañu mbàkke ngir ñëw indi ko la ja sëriñ Saliou wax it moo ca nekk ndax ñun lott nañu mbàkke ci di leen liggéeyal nañ ci lool xam nañ ni it mënuñu ko waaye ñu ngi ciy jéem suñu kéem kàttan ndax ànd ak yéen day daa jafe ndax ànd ak ku yàlla gërëm nga bëgg yàlla gërëm la loo am ci àdduna war nga koo mën a jox loo am nag ci àdduna war nga koo mën a jox ndax ñoom ñii day barke Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul dina nekk fii ñun ñu nekk ca ginnaaw Koumpentoum nekk ca jafejafe jafe ñu fekk ñu fa lijjante jafejafe boobu te duñu jóg fii ñu toog ndax kooku am nan lenn luñ ko mën a faye lu dul lu ñu liggéey jox ko te suñuy xel ñu jël ko sànni ko jëme ko ci lu dul sëñ Tuubaa ndax xel moom sawara la xel sawara la ñoom ñii ñun ëpp ñu leen fayda it waaye nag dogalub yàlla moo dal ci seen kaw mooy dañoo ñëw jébbalu sëriñ bi téye leen ñoom ñu ne ci tool yi ne ci daara gis ngeen diggante bi ñu doxee ba ñëw ba fii metti gi mu metti tàng jër feeñee ñu leen dugal tàng jër la def waaye fi ne ñun benn fan ak ay wax matul fan ay heure képp lañ fiy def ñoom ñooy ñoom ñi fi ne ñuy baagante woo di dem ak a ñëw waaye di jóg sax di fanaan ci néeg yi nga xam dugal nañ ci ñii di jàmbat sax ak tàng ñoom ñu dëkk ci lool tey moo ne ñoo bokk lu ñu def mooy ñoom dañoo jébbalu jaayante sëriñ bi téye leen fi ñoom dañoo lu jaayante sëriñ bi téye leen fi ñun ñu lu jaayante sëriñ bi bàyyi ñuy dellu suñuy tool kon loola ñaari anam yooyu ana kinu kinu bàyyi ak kinu téye ana ñoom nan lañ war a doxe mooy kinu bàyyi mu dem moom daa war a fexe kéem kattanam. ba ki téye dara du ko manqué ndax ki nu bàyyi mu dem moom saa bu xëyee mu ngi dugg ci dëkk bi saa bu xëyee mu ngi lijjanti ji waaye ki nu moom amul fu mu jëm fu dul fi ñu ko teg rek moom foofii rek lay nekk kon ñun bu dul dara war nañoo fexe jéem suñu kéem kattan ba nga xamante ne tey jii liggéey bi sax waratula doon at baat waaye war na nañoo fexe sax ba tàmbali ko ndax sëñ tubaab da ngay tàmbali rek mooy matal ku ñu woon liggéey bi na yegg si fii doo ko gëm ndax liggéey boo xam ci WhatsApp la tàmbalee dugal ci Facebook soppee sëñ Muntaxa ku mel ni man woote ku mel ni di woote ñu dugal la ca liggéey ba ba liggéey ba mën a dem ba toll nii mu toll ñu ñëwul sax Mbàkke ñoo ëpp ñu ñëwul ñoo ëpp mbooloo mu bari la moo xamante ni dar ñurul leen lu dul lii kese kon liggéey bi foofu la ne ginnaaw ba sëriñ bi ñun la bàyyi ñu dem nan leen jéem suñu kéem kàttan ba ñii mu fi bàyyi tumranke bu mu leen dal mukk ndax tumranke daa yomb te gaaw waaye nag nañu fexe rek ba nga xamante ni ñoom ñu xam ne ñun ñii kat sëriñ bi mënoon nañoo téye fii te bu nu téye woon fii su boobaa it nii rek lañ fiy nekke waaye comme bàyyi nañ ñu dem nañ leen bàyyi xel mbokki taalibe yi fi ne di leen taxawu ndax sëriñ bi yor na ay boroomi milliards sëriñ bi loolu dafa jar di jàngat mooy sëñ Muntaxa ñi jébbalu ci moom doon ay boroomi milliards kenn xamul nu mu toll te kum ci dénkoon daara ji kenn képp billaahi lazi daara ji saa bu nu xëyee mën nañ fee rey nag waaye sëriñ bi joxu leen ko sëriñ bi joxu leen ko jàkka kenn ku ci nekk mën na am borom milliards yi mën nañoo xëy tabax jàkka waaye nag ci yërmande yàlla ci la ñuy taxaw di ko benn bennal fukk fukk juróom juróom ñaar fukk ñaar fukk ba loola daal taxaw sëriñ bi ñun loolu la ñu yéene looloo tax mu jox ñu liggéey bii du am-am du mën-mën sëñ tubaa am-am liggéeyalu ko man des fois damay dégg sax gars yi di wax loolu ay nañ ma may ay milliards ndax ñu mën a liggéeyal sëñ tubaa sëñ tubaa ay milliards liggéeyalu ko pas-pas moo koy liggéeyal. billaahi lazi pas-pas mooy liggéeyal Serigne Touba ndax nit ki mën ngaa yore milliard te doo taa boo amul pas-pas doo ko ca def doo ko ca def ki mën naa yore milliard fi mu ne mën nañoo ñaan ay milliards ñu jox ñu ko ñu wan ginnaaw Serigne bi wala sax toog gii ñuy toog ci basan ñu jommale ko sunu bopp kon xam nga lu ñuy ñaan pas-pas bu ñu liggéeyalee Serigne Touba loola rek moo jar a te mbake loolu rek lañ leen di ñaan mbooloo mi daal amuñu yitte. amuñu bëgg-bëgg amuñu soxla seen soxla ak seen yitt ak seen bëgg-bëgg mooy saa bu nu dajaloo ni lii la ñu bëggal bëgg a jëfal Serigne Touba na loola tegu ci seen kanam ndax Serigne bi moom saa bu nu tënkee ba jóg ba war a dem képp ku mu nekk ci sa xol ni lii dinaa ko indi billaahi lasi doo dëppaat mukk te indi woo doo dëppaat mukk te indi woo waxuñu duñ ay conférencier de defuñu ko fii buñ fi jógee micro sax mën nañ ko bañ a laalaat ba déwén ci pas-pas ak ci doxin képp la ñuy dox mooy dañoo bokk pas-pas bokk lu ñu bëgg bokk yoon wu ñu jëm looloo tax képp ñuy soññante ci suñu biir waaye mënoon naa ñàkk waaye daara ji dafa doon daara joo xamante ni ku fi ñëw war ngaa gën a bëggaat liggéey bi sëñ Ibrahima sëñ sëñ Xaadim mi da ngeen a njort ni amul ay yitte yitte yu baaree bari la yor waaye ñi mu wut a dem fenn ndax ndigal li mooy na toog. ñeneen ñi fi nekk it noonu képp moo nekk ci ñoom waaye ñun mën nañoo dem fu ne fi ne su ma génnoon fii mën na maa taal sama dem Dakar jóge ndakaaru dem dem Tamba jóge Tamba dem bërëb sàngam jóge fii dem dem bërëb sàngam ñoom yitte woon nañu ko waaye nag lii mooy ndigal li ci ñoom kon lu ñu am nañ leen daw indil leen te xam ne mbir mi foofu rek la nekk santaat nan bu baax a baax Mbàkke santaat nan bu baax a baax Mbàkke fii saa buñ fii ñëw suñu xol day sedd man sànq bi ñuy dox wallaahi lazim di ñëw ma taxaw fii xool mbokki taalibe yi ni ñuy doxee ci àll bi di ñëw maanaam dama ni leen ñoo ngi doog a siyaar ren ndax ñun dañ daan ñëw rek dugg ci oto yi ñëw ba fii wàcc jël mbir mi dugal ñëw toog amuñu ci benn coono benn coono amuñu ko ci waaye sëñ bi nag liggéey suñ waa day ànd ak coono Cheikh Ibra lu mu rawee nit ñi ci la leen rawe gii bi koy gor kenn fekk ko ci te billaahi lazi kenn ëpp ko woon i milliard ci yoonu murit amul 95 la Cheikh Ibra Fall njëkk am 1895 la njëkk am milliard doonoon marabu boo xam tubaab bi loolu lañ ko doon le marabu de businessman lañ ko daan woowee ndax liiri daakaandeeg lu mu ci mën a doon moo leen ko daan jaay waaye loolu yëpp da koo bàyyi woon jor sémmiñam dem dox ndax kenn ku ne nag ak la la sëriñ bi doon dox doxloo ndax sëñ daa Abdourahmane Lo ba ko gisee bëgg koo dem topp sëriñ bi ne ko bu kàggu yu sori ndax daa am lu lay liggéeyloo mooy li mooy moo tax nga dégg ñu ni ku judd ci Mbàkke sëñ Daam Abdourahmane Lo moo la xamal sa borom booba sëriñ bi loolu la soxla woon ci moom kon liggéey baa ngi noonu wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu Mbàkke ñu ngi santaat bu baax a baax kon bu ko defee rek xam naa ni nii ñu ko defee bun fi jógee waat dañuy delluwaat ca daara ja ñu fi ëpp dàq wax gën a soññe mën a soññe ñoo fi bari ci mbooloo mi lool sax te ñuy bëgg di dimbalintiku ndax ginnaaw ba sëriñ bi mag bi moo daan toog ba mu yàgg ni may jaxate soññ ma asamalaak ñun ñii nga xamante ni ay dongay képp la bu ñu jógee fii noonu yi la ñuy demee ca daara ja noonu yi lañ koy defee bu ñu paree ñaanalante waat suñu biir kenn ku ci nekk delluwaat loolo it la ñuy sàkku suwaat ci yow ndax saa buñ fi ñëwee nga teg ñu ci aw yoon saa buñ fi ñëwee nga wan ñu yoon wi saa buñ fi ñëwee nga jox ñu luy leeral suñu yoon te loola rek la ñuy sàkku na ko sëriñ bi waxee rek coqal bu kaaw noonu képp la mooy ànd ak koo xamante nii boo naree dugg ci kàmb mu téye la soo naree jaar fu lëndëm mu niital la soo naree faqa salu mu daw téye la te doy ngeen ñu ci sëkk Mbàkke wasalaamaaleykum wa rahmatullah yow mii di sàkku ngërëm luy wéy di wéy laxasul te sànni adduna ji daa sànk waaju xamul ndawal bul geesu boo geesoo mu geesu la kat te kon mu dog la bu dootoo dem tafar la la jël moo daa weranteeloo tey fas yi sikkante xatal xolub jullit ba mën a saa mbokk mi ma yàqal na bokk ya woon yàqal na bokk yi tey àddina mi ku ko dul daw foo ko gis farago àddina day naxe tey yootee ko fiire ne ay banax na gaa yi daan na gaa yi fi daan ba na gaa yi fi daan ba na gaa yi fi daan xeex ak ñi daa wuti pal mbooleem ko ci gis tey ji na pax daan bit xaw la desee la ndax bett bi bett ma waaw sëñ Ba Jaxate ne yow mii di sàkku ngërëm luy wéy di wéy laxasul te sa te sànni adduna mii daa sànq waaju xamul dawal te geesu boo geesoo mu geesu la kat te kon mu dog la ba dootoo dem te far la lëjal moo daa weranteloo tey faste sikkim de xatal xolub jullit ba mu naa saa mbokk mii ma xatal yàqal na bokk yowoon yàqal na bokk yi tey addina mii ku ko dul daw foo ko jis feragul addina day naxate yootee ki fiiri naay ba nax na gaayu fi daa xeex ak ñu daa mboolem ko daa xare tey jii kooka tabbi na pax te seeni doom a ngi des fii nag di jooyoo ko ko ñu am te mu rëy moo xam ne mënuñu koo melal mënuñu ko tudd tam ci sunuy làmmiñ waaye ñu dund ko ci sunu xar rek dëpp ko ci ànd ko yéen ci biir ak ci bit ci lu ngeen yëg ak lu ngeen yëgut ndax liggéey bii kat rëy na lool ci fépp fu mu mën a jëm rek bu ngeen ko fu yóbboo dana tuuti ci yéen waaye lu rëy la waaye nag yéen lu mu rëy rëy ngeen xeeb ko ndax dégg naa ci mag yi eh, ñu ko doon wax Sëñ yu nee na jëf bu ko buñ ko nangoo rek boroom xeeb ko buñ ko nangoo rek borom xeeb kon na ngeen xam ne seen jëf ji dañ ko nangu rek moo tax fu ngeen toll rek seen kàddu bu ngeen ko yëkkatee rek mooy xeeb jëf ji waaye jëf ji rëy na lool ci kenn koy defal rëy na lool ci ñim fi fekk si ñu di ko jëfandikoo ndax waxtu wu ne eh, seeni xel ak seeni xol ñoom ñëpp ba ci ki ci gën ndaw ba ci ki ci gën tuuti xelam ak ak ak ak yitteem yëpp mu ngi ci seen lii rek ndax waxtu wu ne ñu ngi koy waxtaane kon loolu lu rëy rëy rëy la ñu ngi leen di bàyyi ak sëriñ bi nga xam ne nag moo tax rek ngeen jóg laxasaay wuti ko eh, fas yéene rek eh, lépp lu bëgg ci daaram ji ak nu ko bëggee ngeen amee ko nii boobu nag ñu ngi leen a bàyyi ak moom moom mën na xeex bi xeex bi mën na ko na si seen xel dal bu baax a baax a baax ñu ngi koy ànd ak yéen ñu ngi laxasaayu de nekkal ko fii waaye fas fas yi ñu ngi fasaa leen nañ leen ci laxasaay gii ñu laxasaayu toog fii itam yéen ngeen yéen itam yéen a laxasaayu nekkal ñu ci biti dina su fekk fii itam ah kon ñaari laxasaay yooyu ñoo tase rek ba waral lii tey kon jërë ngeen jëf ñoo ngi tuub bu baax tey jéggalu kàddu yi koy jërë ngeen jëf Rafah TV une chaîne de télévision culturelle et religieuse Rafah TV ñëppay dañ agréer